aoudu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin wasalatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidna wa nabina muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabiahum bi ihsaan ila yawm iddin asalaamaaleykum mbokki groupe daaray mag ñi wa ahlu sunnati wal jamaa ñu ngi leen nuyu baax di leen ziyaare ñu ngi jégul nag fan yi moom dañuy sonn lool ci sunu ziyaar boobu ñuy bëgg a def ñu ngi koy yëgo yëgal waa groupe bi eh, ñuy ñaan sëriñ daara yi ci groupe bi ku ci man lu ñu mën a dimbalee ci ay kaamil ndax ziar bi mu ay wàccee kaamil rek la Alioune Badara nag moo ñëw ba fii nag ñi ma fokk ñu jàng parce que gëj nañoo jàng leçon ñi nii toog nag taxawuma ci tem waaye nag ñu jéem rek eh, ñi ngi yemoon ci wa aqilun bi udwihi rasa fa ma aqalatu safinatu xamal waaye bu doon Boubacar Diop moom Boubacar Diop moom dana moom day am yërmande moom moom danaan bi noppalul waaye Badara moom Mouhamed Mawlud Fall dafa wax ni zannu tanajusi ida ma xalaba mislu yaqinihi wa wahmuhu haba man shakka fi wuquuciha bi sawbihi qiila bi xatmi nadxihi wa nadbihi wa taarikun li nadxihi walaw amad yuciidu fi lwaqti ala ma yuctamad wahal wahal kahul jasadu wal buqatu aw la budda min xaslihima wa dan taqaw wa shakku fi lmusibi hal wa shakku fi lmusibi laysa yujibu cheyan idi taahiru aslun xaalibu kon muy mu ni danu tanajusi ida ma xalaba mithlu yaqini wa wahmu haba am na nag eh, loo xam ni ci usul war nañ koo xam dafa am lu ñuy wax alwahmu ak lu ñuy wax achak ak zann ak yaqin euh, bu ñuy bu ñuy buñ la nee sawara am na buñ toggee ci place ñi sawara am na am koo xam ne si musta gis sawara waaye nag war nañ ko ñam ñu ko lii sawaraa ko def nii yàpp wi ngay lekk sa sawaraa ko def nii kooku te musta gis sawara kooku nag waahim la ci dafa am wahmu ci sawara am koo xam ni dafa seen saxaar ñi ni ko leec sawara leec ci sawara lay jollee kooku passé na wahmu mi ngi ci chakk eh, am koo xam ni dafa dem paase na saxaar takk tàkk la gis kooku kooku paase na chak am na zann am koo xam ne dem na ba tiim xale yi nag kooku kooku am na yaqiin na ni yaqiin ni sawar am na yaqiin nag moo am daraja am na ñoo xam ne si xaqul yaqiin lañ am am ñoo xam ne aynul yaquun parce que am na ñoo xam ne aynul yaqiin am moo tax nit ci yàlla foofu lañ ci wutee léegi nag bu sobe bu fekkente ni da ngay werante ba xam séeréer am na sobe bu fekkee da ngaa ndax dañuy alwahmu mooy rubul yaqin shak mooy nisful yaqin zann mooy salaasatu arbail yaqin kon eh, ñeenti élément lañ lay laaj pour nga am am yaqin boo amee benn ba ante waahim boo amee ñaari riire ñaari kuy sikki sàkk nga boo amee ñetti yi da ngay moo tax ñu ni booy werante séere bu fekkee da ngaa zann ni am na sobe kon am na sobe parce que passé nga sikki sàkk neen am na sobe bu fekkee da ngay sikki sàkk booy sikki sàkk na am na sobe wala amul sobe neel amul sobe ngay wis rek bu fekkee da ngay wax mu nag neel dara nekku ci kon booy boo zannee neel am na sobe booy sikk sàkka neel amul sobe waaye nag da nga wis booy wax mu nag moom du dara moo tax mu ni zannu tanajusi ida ma xalaba maanaam njortu sobewu bu notee parce que idaalam yaxlib mooy booy njort bu fekkee dangay ngay zann ba mujj nga ñëw ci sakk ba mujj nga dem ci zann kon lam yaxlib mais bu fekkee ne xalabatu zanni la mislu yaqini wa wahmuhu habaa bu fekkee da ngay wax moom habaa la rek du dara kon zannu tanajjusi ida ma xalabaha mislu yaqinihi wax boobu jeex mu ni wa wahmuhu habaa waaye man shakka fi wuquuiha bi thawbihi bu fekkee da ngay sikki sàkka ni sobe am na ci sa yére qiila bi xatmi nadxihi wa nadbihi am na ñoo xam ne force da wis rek nadd am ñi loolu dañ koo soppi dañ koo sopp man shakka fi wuquiha bi thawbihi qiila bi xatmi nadxihi wa nadbihi kon euh, boo amee yaqin ni sobe laal na sa yére xamal ni sobe am na ca bu fekkee amoo yaqin waaye am nga zann xamal ni laal na ko booy sikki sàkka wisal bu fekkee da ngay wahmu xamal ni habala même bu fekkente ni da ngay sikki sàkka nga war ko wisi wisoo ko boo jullee sa julli baax na war nañ laa nekk di yedd nag balaa waxtu waa génn nan la yow li nga def jaadul baamuwaal sa julli même boo ko baamul ba waxtu waa génn it kenn te kenn tegatuloo ko moo tax mu ni wa taarikun li nadxihi walaw amad loolu dina koo tey yuiidu fi lwaqti ala ma yoo tamat koo xam dafa dafay sikki sàkk ndax am na sobe wala amul sobe mu waral ko wis xanaa bañ ko wis ca tey ko kooku ba waxtu wa génn bu boobaa julleem julleem baax na wa taarikun li nadxihi walaw amat yuidu fi lwaqti ala ma yuctamat léegi nag kooku mooy njortu sër sobe bu dal ci sa yére léegi dafa am dañuy werante nag ndax masala mi am fii moo am ci place bi ngay jullee ak sa yaram wala déet xam nga nee na la booy werante séere sa sa mbubb am na sa wala déet bu fekkee da ngaa zann am nga yàqin booy sikki sàkk na ndax yaram ci la bokk ndax kii werante ba xam kii zann ni yaramam am na sobe kii sikk sàkk nga xam ne bu doon ca yéree dañ daan la na nga wis ndax yaram ci la bokk ndax masala boobu ba tey moo am ci place wuute am na ci moo tax mu ni wa hal kahul jasadu wa halil jasadu kahuwa wa hal kahul jasadu wal buqaatu aw la budda min xaslihima ndax ndax eh, eh, masala me moo am ci yaram ak fi ngay jullee wala boog force da nga ko war a raxas wa dan taqaw maanaam lu mujj lii moom lañ tànn im taxaw tànn nañ bu dee ci yaram moom boo werenteeg boo zanneeg boo siksa yëpp raxasal bu dee place dindil léegi nag xam nga yee daf la doon wax nii bu fekkente ni sobe dalaa dal ngay were sobe ngay werante am naam amul tey nag fialan laal na sa yére wóor nañ laal na sa yére tey nag sobe da ngay werante ndax sobe wala du sobe booy werante sobe sobe la am du sobe moom nel du sobe waaw wa shakku fi l musibi laysa yujibu shay'an id taahiru aslun xaalibu waaw wa shakku fi l bu fekkee da sikk sàkk ci li dal li dal sa kaw sobe la am du sobe bu fekkee dangay ngay zann moom sobe la mais booy see sikk sàkk moom laysa yujibu shay'an du waral dara is na attaahiru lu laab mooy aslul xaalibu maanaam lii aslu ci cosaan ni mooy mooy lépp taahir kon lu la wóorul ni am na sobe rek xamal ni taahir la kon kon tey nag amoo zann amoo yaqin shakk rek nga am waaw kon zannu tanajjusi ida ma xalaba mislu yaqinihi wa wahmuhu haba man shakka fi wuquuciha bi sawbihi qiila bi xatmi nadxihi wa nadbihi wa taarikun li nadxihi walaw amad yuciidu fi lwaqti ala maa yuctamad wa halkahu ljasadu walbuqatu aw laa budda min xaslihima wadan taqaw wa shakku fi lmusibi laysa yujibu cheyan id taahiru aslun xaalibu yaakaar naa wax yaakaar naa leer na yaakaar naa leer na kon nag euh, bu ko defee dañuy yem fii léegi nag incha allahu euh, les rudules yi ñu doon wax ci radul mursal gis nañ ay audio yu bari ya nga xam defoon nañ ko bañ jógee Arabie Saoudite audio yi defoon ci xabd léegi nag fuñ fuñ indeeti darsu euh, kifa euh, fa kafaaf pour bañ ñoom ñoom euh, Alioune Badara naan yaa ngi yàq suñu leçon yi léegi man fu ma joxee ci leçon rek dinaa jël ci audio yee benn dugal waaw bu ko defee fan yi nga xam ne si itam dañoo nekk ci suñu problème mu ziar bi ñu ngi koy yëgal ñëpp bu ko defee comme jot gi day gën a ñàkk waaye incha allah leso yi nga xam moo passé woon danañ ko dugal ci groupe ci groupe bi ndax am na ñoo xam fekke wuñ ko woon te am na ñoo xamit ni ña ko fekke woon it ñu ci bare euh, amatuñ audio yi ñaan yàlla may ñu dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu